Ah là là, là là, là là, c'est vraiment dommage, c'est dommage, euh, c'est vraiment grave. Wa gars yi ngi jéggalu mbir mi ma lan moo tax tey on dirait que toujours boo bëggee wax lu leen di déranger couper live et du coup ndaysan ma eu... live bi cas social commencé bombarder sama téléphone bi je ne sais même pas où commencer mais je sais que. Euh, le Sénégal nous faisons un travail extraordinaire euh, li ñuy def euh, c'est vraiment amul L'Union li def c'est c'est encore comme ni mako mané euh, ça fait vraiment une fierté que ñu mën a génn ay doomu sénégalais ñuy génne information yi nga xamné ne mo

am nañu endurance am nañu énergie euh, te ñëmé nañu euh, def ci suñu ay moyens aussi di xex donc du coup euh, bëgg nañu kuy def lu baax nga def ko ngir yalla aussi pour Sénégal et ku amul aussi lo xamné amna lu important lo xamné di nga ko partager ak doomu sénégalais que tu vas dormir parce que ñun dara duñu dello ginnaw rien rien ne nous fera reculer devant tous ces malfaiteurs il faut loolu ngeen bàyyi ko ci xel euh, keroog rek maa ngi koy wax ma bëggoon leen laajaale sax peut-être yéen ñi fi nekk ndax Angleterre tamit dafa am ay cas sociaux ndax léegi damay gis ay numéro Angleterre tamit dañ may woo ñu ne ndeysaan Macky Sall la faral manam dañ may wo jekki jekki rek di wax ay ñaawteef nenañu Macky Sall lañuy supporter mais cela ne nous intéresse pas parce que comme nima len ko waxé rek li xew ci souf lool dinañ ko lijeent souf légui nañu continuer ci kaw ma continuer rek ci cas Ousmane Sonko par 3 donc euh, par 3 li tax mané par 3 parce que par 1 dafa dag après ñu def 2 après légui biñu défé 3 donc euh, du coup commencé wuñu sax mu dag donc euh, nañu continuer ci li nga xam ne moom mooy cas Ousmane Sonko bi li ko yóbbu woon Saint-Louis parce que Sonko li muy wax dafay déranger xam nga Saint-Louis euh, booru géej gi noonu dafa am zircon te dafa am aussi petrole dafa am gaz dafa am maanaam ay richesses yu bari yoo xam ne dañu laqatu foofu donc ñoom jaral na leen ñu toroxal doomu aadama yi dëkk foofu ñu bàyyi leen sax ñu dee xam ngeen foofu Macron dem na fa foofu Macron a visité Macron a visité cette partie de Saint-Louis Oui, lepp ay tactique la les ay technique la été dañ sur place pour lan pour sag pour Yakadom, doomu sénégalais yi nga xam ñom Oui, euh, on va continuer dans ce débat Si paré Inshallah, Inch'Allah, ñu ñew ñoo gëna a sonn bu <laughs> Angleterre ah en tout cas parce que man ce que je n'ai pas compris tu peux tu peux passer 99 eh, eh, tu vois que parfois je ne sais pas la personne qui appelle vous allez écouter euh, je pense que allô allô <laughs> la plupart des temps euh, les personnes qui sont dans ces réseaux nous soutenir nous supporter ils ne peuvent pas supporter ce que nous nous faisons dans ces réseaux parce que ce que nous nous faisons dans ces réseaux euh, c'est Dieu qui nous donne la, puissance il y may donc du coup nous ñu yëg naqar euh, mais partout ça vient tous les malfaiteurs ça vient mais ça ne nous dérange pas parce que intéresse, c'est que ñun sommes au Sénégal je suis amusé parfois quand je pense entendre des gens qui passent leur temps à s'asseoir dans des réseaux et insulter de mère et de père du matin au soir moi je me dis avec ce temps important que je possède euh, euh, que, je euh, euh, en anglais with this valuable time that I possess temps important bi nga xam la je pense que Yalla jox na pour me jox ko ay doomu aadama ñu jëfandikoo ko euh, d'une manière euh, précieuse mais loolu nag xam nga ki koy xam mooy kii liggéey ñu koy fay xam nga booy liggéey ñu lay fay on di que time is money dinga nga comprendre ne que temps bi ngay jël di ko xasee doomu aadama bi wala nga koy saagaa doomu aadama bi di nga comprendre ne que ce temps est précieux ce temps est quelque chose qu'on te di la ko jox jox la maanaam euh, tu as un salaire et tu que bépp minute boo dépensé ci temps boobu maanaam da ci am mérite donc di coup même bu dee du liggéey boo ko jëlee aussi di wax ak ay doomu aadama xam nga ne temps boobu dafa précieux mais tey boo dul liggéey fayeekuwuloo euh, yow li ñu lay jox yëpp maanaam handout dañ la ko jottali donc yow tu ne comprendras pas temps ban njariñ la am mais man xam naa njariñu temps du ku du ma toog di werante ak ay doomu aadama wala di xastante ak ay doomu aadama wala di waxante lu ñaaw je vais répondre quand même si quelqu'un me dit quelque chose qui est dérangé wala déplacé je vais te mettre à ta place pour te dire exactement ce qui ce que je dois te dire et après là je continue mais munuma tok tay di xex ak lu tolloog état ma xam état kattanam fi mu toll ma xam état combien de malfaiteurs il possède ma xam état combien de de de de de traîtres sont dans l'état mané man kenn ma dem donc ce qui veut dire que ñun dinañu déglu euh, euh, doomu adama yi nga xamné aussi ñom ñoo am lu leen nakari ñu ñaxtu ñu déglu aussi doomu aadama yi nga xamné aussi ñom ñoo am lu baax lo nañ indil ñu déglu euh, pour seulement ñu ñun Sénégal nous ñu intéressé attendez ne quittez pas Allô. waaw nuyu naa la kooku. ah ok ok voilà mais grand il faut nga jéggal ma bu ma paree euh, ci live bi après ma jël s'il te plaît merci voilà donc euh, ngeen djegal ma kooku c'était un ami au Sénégal voilà mais li am importance mooy partage euh mu yaatu comme ça ñu yeggali li nga xamné mom mo doon Ousmane Sonko bi Saint-Louis li taxone dem Ousmane Sonko dem Saint-Louis ak li nga xamné loolu la fa dem lijjanti ak tamit bi mu fa yeggé gàllankoor yi mu fa dajeel ak caaxaan yi nga xam ne yooyu la Macky sal def sur place parce que dafa bëgg a nëbb li nga xam ne moom la Sonko bëggoon wax xam nga Sonko li ko yóbbu woon Saint-Louis ay doomu Saint-Louis ñoo ko fa woo defe naa loolu on l'a mis eh, yéen ñu bari dégg ngeen ko dinaa leen ko tegal duma leen tegal audio bi mais dinaa leen tegal parti boobu ngeen déglu ko ngeen déglu ngeen déglu fii ah. ballem. cadre d'une tournée sociale. Donc cette tournée sociale a été programmée depuis la semaine passée. Et cette tournée, normalement, aujourd'hui, le samedi 11, on devrait se rendre sur plusieurs sites de Saint-Louis. Donc on s'est rendu à Sanar, on s'est rendu au village artisanal, on s'est rendu aussi au niveau du quartier des pêcheurs de Gendar. Et l'après-midi, on devrait faire euh, une conférence de presse populaire à la place Pointe-à-Pitre. Mais ce matin, il s'est trouvé que on a constaté l'organisation d'une cérémonie religieuse depuis ce matin. Alors que euh, la conférence publique, on a déposé une autorisation en bonne et due forme. Et cette autorisation a été accordée par le préfet de Saint-Louis. Donc ce matin, on a constaté l'installation de bâches pour une cérémonie religieuse. Donc euh, après avoir eu cette information-là, on avait en conformité avec le président Ousmane Sonko, on avait envisagé d'annuler la conférence de presse jusqu'à demain. Donc ce qui a été fait, maintenant la conférence sera tenue demain, Inch'Allah, à la chez Dada, au nord, à 16h. ce sera l'occasion pour le président de parler sur tous les problèmes de Saint-Louis, notamment sur le problème de la brèche et le problème aussi des pêcheurs. Parce que si vous voyez récemment, le problème crucial au niveau de la langue de Barbarie, ce problème-là est dû à l'avancée de la mer, mais aussi à la brèche, artificielle qui a été creusée sur la langue de Barbarie. Donc c'était l'occasion pour le président de parler sur cette situation-là, mais aussi de parler sur les autres problèmes euh, qui sont présents au niveau de Saint-Louis, mais plus spécifiquement au niveau de la langue de Barbarie vous avez constaté que dernièrement, euh, le président Ousmane Sonko fait l'objet d'une diabolisation. Donc nous, on en a déduit que c'était juste des manigances. Donc pour ne pas offusquer, parce que le président Ousmane Sonko donne une place spéciale aux familles religieuses, parce que là, c'était une activité religieuse, ce qui fait que depuis le matin, le président avait dit que la conférence sera annulée et on le fera demain, Inch'Allah. Donc je pense que c'est dû un peu à cette tentative de diabolisation que notre

bi bi def suñu euh, interview ñu yónneewaat police naan dañ koy arrêté duñu arrêté dinañu wax ba mu jeex su leen neexee lacrymogène leen war ngeen def leen neex mais dinañu wax lii nag dafa ñaawut parce que dafa rafetul parce que Macky Sall moomul réew mi te lii muy def day sonal boppam ñun mënuñoo tere wax mënoo tax tere Sénégal Sénégalais yi dégg ñu lii c'est des yoo xam ne amul dara lu ko justifié taxaw fii ci trottoir bi def bi nekk nii ñu yónnee police naan waruñoo wax loolu duñ ko nangul kenn dinañu wax ba saint ancienne cité phare du Sénégal classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est en train de perdre ses terres ses ressources ses habitations et ses infrastructures à cause de l'érosion côtière il est temps d'agir de toute urgence face à cette menace néeg bii ngay janoon foofooy sama néeg vague yi bu nu jógee dañuy dugg ba sama biir néeg bu fekkee géej gi dafa nas xànk vague yi di dóor man du ma mën a toog sama biir néeg c'est parce que sama biir néeg day tooy su ma tëjee bunt bi ça rentre dans ma maison dans ma chambre. Chaque année, la mer avance de 5 mètres, obligeant plus de 200 familles à abandonner leurs foyers et leurs biens. Un millier d'autres sont menacés par les risques d'inondation et les effets de l'érosion côtière. Le changement climatique et la hausse du niveau de la mer aggravent la problématique côtière, l'érosion côtière et aussi le résultat d'une planification inadéquate. Conséquence, aujourd'hui des maisons, hôtels et infrastructures se trouvent sur des zones devenues vulnérables notre souci, c'est de préserver notre territoire, et de faire en sorte que la population de Saint-Louis, surtout au niveau de la langue de Barbarie, habitée donc par, des pêcheurs qui exercent leur métier de pêche en réalité, que ces populations-là puissent vivre et exercer leur métier en toute quiétude et en toute sécurité. Et pour cette raison, hein, donc, une mobilisation est nécessaire pour que la langue de Barbarie soit protégée sur le niveau de la mer oh, augmente et que la langue de barbarie disparaît sans aucune protection, c'est les terres entières à l'intérieur du pays qui seront menacées. Le Sénégal et les pays du littoral ouest africain, de la Mauritanie au Gabon, se sont unis pour venir à bout de ce fléau commun. Les solutions comprennent la construction de meilleures infrastructures, le renforcement des systèmes d'alerte et surtout la promotion d'une coopération régionale car ce qui se passe dans un pays a des répercussions chez ses voisins. L'érosion côtière n'a pas de frontières. Il est clair que le, problème de Saint-Louis est très sérieux. Euh, c'est un problème qui est très complexe. Euh, en tant que banque, nous avons entrepris depuis quelques années euh, d'accompagner la ville pour résoudre ces problèmes. On a besoin aussi de l'engagement de nos autres partenaires bailleurs, de la communauté internationale pour venir à nos côtés et intervenir. La Banque mondiale, en collaboration avec ses partenaires, soutient ces pays dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain, ou WACA en anglais. L'objectif du programme, trouver des solutions permettant de renforcer la résilience des populations du littoral, préserver les ressources naturelles précieuses et favoriser la croissance économique. Voilà. donc boobu benn la léegi bàyyi leen aussi ma wan leen beneen cas bi nga xam ne ay ordure fu nekk ci booru géej googu euh, ma won leen ko Saint-Louis abandonné à voilà léegi ñu ñëwaat foofu ngeen seetaan fii salaamaaleykum mbokki internautes yi ñuy suivre ci 3W azactu point net tey nag euh, ñu ngi biir Saint-Louis ku xam saint xamné ne bokk na si ville yi gëna a rafet Sénégal ville yi gëna attractive fi ci Sénégal ville yi nga xamante ni bokk na sax ci ñuy doxal tourisme mais nak Saint-Louis rafet na lool waaye amna ay problème am problème Saint-Louis waxon nañ fi érosion côtière dañuy faté né problème Saint-Louis aussi dafa nek les ordures mbalit mi tay bu ñëwé fi ci plage bi ñu gis né plage bi c'est bien beau mais dafa salté

dafa am xet ndax euh, dañ fi tuur aussi ay ndox yoo xamante ni xet bi neexul ndax yow loolu bokk nga ci ñi koy def avant man fi ñu koy def si naa bokk ndax bi amuñu fu ñu këpp joxuñu def kaay mbalit fii noonu am fi ngeen koy këpp mbalit ko denc suñu biir kër yi daan ko balewoon seet waa ko bien si dex gi noonu am fi ngeen koy këpp. dëgg dëgg. lan jëloo ay mbalit di ko pour bu oto bi ñëwee ramassé mbalit euh, bi yóbbu ko. suñu bundu kër ku ne am nga pôle sa bundu kër. Hmm. waaye da nga ko fay ba mu gas sax doo gis oto oto daal oto mbalit lu tax loolu ñun xamuñu lu tax. maire bi joxe ay pôle ñun gisuñu suñu yi suñu yi bu ñu commencé liggéey ba suñu doom yi gi nañuy sangoo fi nañuy suñu fi ndax waaw ndax yéen xam ngeen ne ndox bi ngeen di tuur fii ak mbali bi noo seulement day dàq jën yi waaye mën naa indi yeneen jàngoro yoo xam ne nii ay microbe yoo xam ne dana peut-être indil problème seen doom yi ba pare tamit plage bi dina dem ba yéen dootal leen fi mën a sangoo. ndax xam nga ne plage bi léegi koo xool xam na nit ñi dootuñ fi dugg xale ndaw ya fi dugg ndax salte na salte boo xam ne day indi feebar suñu yaramu doom yi léeg-léeg nga gis ay putte lu ne ngay gis suñu yaram yi amuñu jumtukaay. léegi nag yow lii lan moo ciy pexe. lan xanaa mairie bi jàppale nañu état jàppale ñu indil ñu ay pôles yu jox ñu ay pato jox ñu da ndax ñun fii nañu am. fii bu amulee jën ñun duñu góor gi ñu ñëw fii fekk fii yëpp am mbalit am ay ndox yu tilim te fii nekkoon place bu rafet ñu bëgg a xam lii lu ko fi indi ak lu ko fi waral waaw boo gisee loolu faral di am nii mooy ñàkk place boo xamante ni mën nañ fi di def mbalit parce que bu amoon place boo xam ne mbalit mi toujours dañ ci faa def bu oto di ko jël ci bon du am problème mais suñu problème yëpp mooy amuñu loo xamante ni dañ fi mën def mbalit oto ma ñëw di ko jël ci di yóbbu loolu ñool suñ mooy suñ premier problème boo gisee fii ni mu mel sax daa xamante ni toujours nag dañ koy set setal toujours mais balay am benn semaine nga seen moom mu dellu fa nekkoon encore di boolee ndox ak mbalit ci loolu mu gën nekk danger encore waaw couche yi si si yi ñu gën a sonal si la bokk bo man daal ni ma gisee fii bërëb la bu nga xamante ni bon yombal na setal mais suñu jafe-jafe mooy ak suñu environnement ba place bu nga xamante ne war nañu fi mën def mbalit di fi di di lu waaye am suñu mbalit di ka fa def loolu loolu mooy suñu jafe-jafe bu ñu ko amoon daanaka xam naa ni bon lu bari mën a wàññeeku waaw yow nga nekk responsable ci pêcheurs yi ñu bëggoon a xam tey mbalit mi ak ndox bi lan lay def ci seen liggéey. waaw boo xoolee dex gi gis nga dex li fi nekk nii kii daanaka jën fi nekk waroo mën dund dund ko normal sax doo doo ko dund parce que ndox euh, jën dafa soxla place bu set bu amee ay xeer xeer ci ndox moo moo gën mbalit ci ndox bu dee xeer jën wi dafa fi mën nekk def fi dëkkuwaay. di dugg ak di genn bu dee doj doj xéer lo fi mëna sànni am problème du mais bu dee mbalit bu nebee rek day day day day day place bi jën wi nek te place bi place mo bo xamante xéetu xeetu wu ne dëgg daan japp ci dex mais yooyu yëpp ñu ko ci dara war lu lool moy dex légui mbalit mi baré na aussi ñongatul dal ba ba bay jën man fi mu noppal. man fi la dëkk fi la liggéey mom looy liggéey. man pêcheur la oui. waaw yow ndax rafetlu nga situation bii nii nekk si seen euh, plage bi nga gis mbalit mi gis ñu fi këpp ndox ak lu ne yéen pêcheurs yi ndax yéen rafet nga. no loolu moom noo ngi koy méttiwul bu baax a baax man da wax dëgg yàlla lu lu métti la nag parce que bu doon soog suñu quartier bi mu set képp koy tur ku nekk rek fii service parce que lii nii lu ne jàngoro bu ne lay indi jàngoro bu ne lay bu doon suñu soog fii yëpp nii maam day set wecc ñëpp ku kenn ku ne boo ñëwee taxaw rek. sa yaram du daw quoi mais tey tey jii képp koo xamante ni jóge na beneen dëkk ñëw fii tamit du ko rafetlu mais ñu fi dëkk itamit ñoo ngi ñaan nguur gi jàppale leen su baax baax parce que lii fi dara waaw parce que lii nii moom wax dëgg yàlla moom gars war nañ si jàpp Macky Sall jàpp si itamit lii nii mu jóge fi quoi. ndax euh, yéen seen koñ amul foo xamante ni bu ngeen fa tegee mbalit bi oto bi day ñëw jël. oto bi ñëwatul. déedéet. léegi donc mbalit bi daal fii koy bàyyi ci wetu plage bi. ANCAR dugal koy dugal ci ndox mi bàyyi ko foofu. waaw. ndax gis nga ne plage bi léegi dafa salte dafa xeeñ. dafa salte waaw ndax xet bi dañ ñëw suñu kaw. loolu lan moo ko waral. loo xam ay salte rek affaire salte la boobu. waaw. ndax gis nga ne baax na tey ñuy jël mbalit mi di ko sotti fii ci plage. loolu gaa baaxul déedéet. voilà donc euh, defe naa partie boobu aussi gis ngeen ko. ngeen jéggal ma rek euh, parce que fi mu ne nii euh, léegi euh, temps bi bareetul mais léegi ma jox leen lumière wu ressources yi nga xam ne moom moo nekk foofu ci plage boobu léegi déglu leen kii di Clédor Sène bu Sénégal maanaam bi mooy pétrole ak gaz parce que ñaar yooyu ñooy faral di ànd hmm? léegi li ngeen gis nii yëpp ay permis yu ñu joxe la te ci nguuru Macky Sall lañ ko joxe chaque couleur benn société moo ko moom couleur rose bi ñaar yi Casamance ak Saloum Tende Oil lañ ko jox mooy Ovidiu Tende bi nga xam ne dañ ko tëj kaso Roumanie sept ans lañ ko condamné te nee nañu ci lu kenn weddeegul ba léegi jox na dix-huit milliards fondation euh, Marème Faye Sall te déggaguma ñoom ñu def ci démenti wala ñu ñu lijjanti ko mhm. xam nga ñom ñoo mom ñaari bloc yi ki c'est toute la région de Casamance pétrole la jox nañ ko Tendo Oil toute la région euh, du Sine et du Saloum mm-hmm. pétrole la donte bloc bi bloc bu Saloum lañ ko tuddee. Mm-hmm. ñu ko joxé 2013. en rose en rose. rose waaw léegi euh, bi nekk nii ci digg bi. mooy euh, beige. beige c'est le bloc de Djurbel. waaw bloc de Djurbel. la. Mm-hmm. mooy mooy bi ñu def émission bu rectangle donc bi ci kaw kaw nii mooy blogu Louga blogu Diourbel bi AZ Petroleum lañ ko jox bi ci kaw mooy blogu Louga euh, société bu tudd T5 Oil lañ ko jox mais filiale am bu tudd Black Stars, moo signé contrat yi contrat yi Black Stars, moo ci nekk mais Black Stars, mooy T5 Oil moom la ñu jox euh, blogu Louga bi Louga la ñu tuddee blog bi mais boo xoolee dafa englobé région de Saint-Louis ba frontière Mauritanie ba ay Dagana ak Podor ak yooyu da ko englobé mais blog bi ñu ngi ko tuddee Louga

ci jéeri ci ci ci géej gi ni yépp tam ay permis la plus de quatorze permis yoo xam ne jox nañu Oryx Petroleum jox nañu Oranto jox nañu Far Limited ConocoPhillips Woodside Cosmos Energy bëri nañu bëri nañu ak Elenilto Elenilto euh, dinañ ci def émission spéciale parce que ay israéliens lañu dañ leen jox euh, plus de 7000 km2 euh, de nappe pétrolifère fii en Casamance ba noppi nangu contrat bi ñoom tam ñu ngi en ak état du Sénégal léegi euh, ñoom ñoo moom euh, le groupe Ono moom donc Elenilto dinañ ci def taxaw seetlu benn euh, firme israélienne la buy bu ñu jox benn pétrole fii en Casamance plus de 7000 kilomètres carrés dana pétrolifère boo xam ne dafa am contentieux ak Sénégal parce que bokk na ci permis yi Macky nangu ñoom ñoo moom groupe Ono moom gis ngeen hôtel Ono nek yoonu aéroport gis nga hôtel boobu gis nga fa palanteer wala balcon hmm? mais façade pour pour beauté architecturale pour éclairage ak aération mais façade boobu lo fay gis rien du tout donc nañu def euh, nañu taxaw ci ci ci ci ci société boobu le groupe Onomo ak Elinito wax len li nek ci biir L-U-H-N-O-W Daddy, I'm busy. I'll call you back. gars yi maa ngi de maa ngi jéggalu liggéey bi liggéey bi tamit duñ ñu bàyyi duñ may dara duñ may. technology to cheat during its World Series winning 2017 season. Sources familiar with the punishment. blog léegi blogu Kayar bi ak blogu saint bi euh, yàgg nañ pour di ngeen ma jéggal de ma defaraat leen leen seen audio bi baal leen ma rek source iPhone voilà jéggal leen ma nit ñi mënuñu ko sax njort c'est donc à part ñooñu euh, Cosmos Energy euh, ak euh, BP bi yor léegi le bloc bi ñu joxoon Timis Corporation mooy blocu Kayar ak blocu Saint-Louis. Mm-hmm. blocu Kayar ak blocu Saint-Louis. léegi blocu Kayar bi ak blocu Saint-Louis yàgg nañ ko trouver parce que la First Exchange Corp ci document bi mu leen njëkk woon. le papier de 93 Mon défaut les travaux euh, de recherche et d'exploration first exchange corp américain Les travaux les en 91 L'église Jeune Afrique économie le, 1997. C'est Eldorado. minier. Moi, un paradis minier. de 87 déjà 97 plutôt déjà Les filles les 1997 Jeune Afrique économique de 1997 plus de 20 ans j'ai gardé ce document là parce que ça m'intéresse donc lu là intéressé Tu débat pétrole euh, ressources minières tout ça là au moins, mu leen koy mais c'est fait euh, Tu di ngeen xam Inch'Allah. Donc, tu donc nous lañu wax ni euh, blogu Saint-Louis à Kayar bi avons découvert ko découvrir 91 des découvertes ont été ont été faits wax. depuis 91. waaw nous la la le potentiel parce que First Exchange euh, découvrir euh, euh, euh na depuis 1987 déjà mais 91 jumtuwaay day évoluer ci la ñu confirmer potentiel mais mais grand pour yow lan moo nous lan nous sommes mosuñu am autorité nous xam dañuy gérer wala suñu état wala gouvernement mu taxaw dévoiler ni wax ñu que Sénégal am na ressource humaine euh, que bu ñu ko bu ñuy jot bakoy exploiter sax te ñun yëguñ ko la c'est quoi le problème parce que mhm. amul ben nguur bu mas a liggéeyal exclusivement Sénégal parce que bo ñëwee ba dugg ci pouvoir da ngay japp ni yow da ngay tënku ci lekk yow ak tubaab bi bàyyi sa askan euh, parce que da ngay da ngay xol exemple bu terre à terre comme suñu jën bi ma la joxoon exemple jën suñu géej gi jën kese ko mais jën bi état bi day préféré signé ak euro union européenne union européenne jox ko ay milliards milliards yooyu fu muy dugg fumuy féete ñoom ñu am ci luñ ciy am tubaab bi am ci intérêt ñun suñu mool bi daal di dee parce que jën bi day daw day dem ba biir biir géej euh, bu doon def pêche du jour gëtu terre terre le matin euh, dem le matin terre midi day plus loin les day essence glace parce que les têtes, aussitôt ils ne sont pat pati day dem def ñetti